bon président Idy dafa war a ñëw tey à 18h léegi nag affiche yi dafa dafa desoon ñu ko doon mottali léegi nag bi ñu koy mottali xale yi dem ba si kaw tali ba ñu ñu dogaale leen ak ay marto ak ay peel ak ay yooyu gaañ nañ ci nag six personnes yoo xamante ne nii ñi dañu xar seen bopp ak koo xam ne dañu toj bopp bi ba damm seen ay loxo euh, évacué nañu trois yi sotawoo trois yi ñoo ngi fii au niveau de district de Dominique ñoo ngi ñaw seen bopp yi ñu leen def loolu waa APR yoo xam ne ñun ñoo bokk benn koñ depuis 40 ans ñu ngi si biir koñ bi ak ñoom. waaw ñoo ñoo ko def euh, paa bi moo doon moo doon teppi te ñu xale yi ñu tax paa bi di ko teppi euh, xale yi ne ko papa li ngay def mën indi ay histoire donc doomam yi daal di jóge fële daal di commencé jël ay peel ak ay rato même su fekkoonte ñoom ñoom ci seen bopp bëgg ñu def seen buntu kër ñoom mënoon nañu wax gentiment non non ne faites pas ça. yaa Cheikh Gueye Cheikh Gueye euh, Lahat Abdou Ahad Ndiaye yaa aussi Mbathio Fall Modou Gueye. Euh, Maadou Gadiaga et euh, un maçon maçon bi je ne connais pas son nom. donc tey jii dañu ne suñu militants yi nañu rester calme mais nous demandons au procureur ak justice bi la ñu defoon Tamba ba loolu amee ñu defaat bu Pikine maanaam ñëw jàpp ñi nga xamante ni ñoo def agression bi parce que identifié